عباد الكرام ولتقول أبدا خير المرام أديتي مخجلة كل مليك كان مناسيا وساء المليك ما توجه نصار الله لي بلا إله إلا الله شيخ بامبا يا ما تبصري يا خوتي مري آخرين وأنا يا رو أمرين say gaale jale xarnu gi sopp nu ay wa gooke gaal ni yab sa marsandiisum aal di góoru Sénégal di def nu machine ci xarnu gi Seex Bamba yaa ma dog sëriif Mbàkke mu soobe dootu soof seen xol yi war nañu gëriif maam jaarat jiim na xarnu bi siggal nga waa bawal Mbàkke Kajoor yaa leen bewal penku bawal yaa leen defal o tax ñu si iw ci xam si iw ci dimbal Mbàkke xewar ak Mbàkke baare kaseer saañan ka Bamba leen defar ba ñu defar waa xarnu bi askan kër maamaaram yaa tax ba waa duñu gërëm mu ber këram bari dërëm daa guru soo ci xarnu bi daaru salaam daaru minan daaru yi fii kulli yaa leen joxoon ak yoroon ku di laajal xaram bi yaa tax ñu doone capital ñoroo ñoo ki fakital am nañ barke am alal ñoo gàddu mbooleem xaram bi sa daaru yee di lopital ku rag war na lay dagaan ku ñëw nga jox garab mu naan docteur yaa faj xarnu bi raggi xol ak raggi yaa koy ragal joxe garab jaraj yi war nañ laa gërëm ne yaa wéral seen xarnu bi fekkoon nga réew mi defi ndool fekkoon nga ñëpp defi bool yaa tax bari ñii di bool yafal nga mboolem xarnu bi fekkoon ñii defil la fa ñii daanu far bari fëlañ ñii kun ñaan jabar mu bañ ñii mel ni man ci xarnu bi sa waay du ñee waay keneen sa waay do xac jëm feneen jeesu xam diggam keneen sa diine doy na xarnu bi barke borom Tuubaa xam nga ni ko Karim waxee rek moom ku def nun a defaale ndax noonu ci lan bokk jërëjëf alhamdulillah والحمد لله والحمد لله رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ربي بما يزرع أزال خلف داه بجاحي أفضل من لله خلده حمد لربي كله الخلق ما ليختار من برأ نجيت يا جيت كتب سرين توبا جوغل ماغال مامي سيخون تغاون جيت لا لا لا جل اخوامن وكرمني تكريما خادم وكل ملك خبر رحمن خلي جناخي خلق رحمة من ينا خنزل من خلعا وخلعا خدمة المصطفى خدمة المصطفى من كل مفسدة وتلخم خلقه يا من جد بلاء يا مالك الملك يا من جلال غد يا جميع الغلاء يا خدير الرداء مخوصا bijaax afdali man ilaahi xalaja lu baax lu baax ba jàll baax lu baax lu baax lu baax lu baax ba jàll baax waaye bàyyi maam Seex Antaale su baax bàyyi Sëriñ Muudu Maamun moole su baax baax nga yem fi xotu baax ba xal gaay xal baax tay for mbindee fii nee nañ fa di góor taxalu naa taxalu naa yal na sëriñ Tawana defar suñu biir batinam aw baana xumbala aaxu diiru Moussa ànd ak sëriñ Touba ànd ak sëriñ Touba te tàggat Moussa yal na sëriñ bi boo lay dimbali.